aja mbokk yi arbitre sifflé na vingt huit minutes Sokh 2 Raku Sokh moo ñu wan kanam Petit Lo doomu Modou Lo moo ñu wan ginnaaw ndeysaan baayam mooy frère le roi des arènes ñu ngi lewtoo combat déclenchement combat derby Parcelles Pikine Sokh 2 booy xool moo sut moo ëpp laf tuuti waaye méngoo nañu Petit ngi tekk jiital tànk day joor sànni na droite waaw Petit Lo ah Petit tànk ya dalaa gën a gudd jàppante nañu nag ay waay day am chute day am léegi mu sotti léegi mu sotti léegi mu sotti épreuve de force Sokh 2 bal ko ma ngay door ak gauche mi ngi door a gauche Petit Lo bëgg na ko yóbbu mais Sokh 2 dafa diis ndeysaan mag ñaa ngay seetaan ana jaxabal ana wéyale wéyale na ko Sokh 2 bañ na Petit loxo gauche bi day jéem a jàpp mais jàppul bii Franc la ak Sokh bii Modou Lo la ak Eumeu c'est un grand derby ku daan dem sa tooj tooj tooj soq doo def ko bëggoon a yëkkati ñaari xale ñoom ñaar ñëpp dañu liggéey macha allah soq doo moo ñu wat ginnaaw jàppante nañu ne nañu tekk ay ndaanaan lañu rakki ndaanaan doomi ndaanaan ndeysaan tegante nañu ay épaule euh, dafa diis dafa diis Petit Lo Petit Lo da ko doon jéem a tuur attention la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah lu arbitre di wax kan moo daanu la ilaha illallah jaxaay dañuy bërewaat waaw arbitre nangu naa nangu na arbitre na leer na leer ooy na leer vingt heures dix minutes arbitre nee na nañu bërewaat gars yi kontaan nañu Fallou Ndiaye combat bi da nga ko bésal wutal bés Petit Lo sànni na benn ndeyjoor tànk ndeyjoor la jiital Sokh 2 tànk ndeyjoor Sokh 2 attention jàppante nañu daanu na attention jàppante nañu daanu na daanu nga daanu nga daanu nga Petit Lo daanu na oh dafa diis dafa diis ci yow dafa diis dafa diis da laa sut diis ndeysaan ndeysaan làmba ngi noonu na derbi Pikine moo am ndam c'est la loi du sport Raku am na ndam ci kaw Petit Lo doomu Modou Lo ndeysaan champion nii la nee na gars def leen ndànk il est serein nag ndeysaan il est serein